salaamaaleykum wa rahmatulah euh, ñi ngi ziare mbooloo mi yëpp maa leen di ziare man la Aline Badara Ndoye euh, leaderu Macky di ko liggéeyal fii ci Oumoul Khoura bëgg koo jàppale ñu fas yéene koo fal premier tour le 24 février bëgg nañ mbooloo mépp ñu mobiliser leen ñu ànd ak ñun dem falaat Macky Sall euh, wax dëgg gis ñu bi mu toogee ci réew mi ba léegi jëf ju rafet jëm jëf ci Touba ak li mu suqalee dëkk bi ba euh, jafe-jafe yi fi nekkoon euh, saye boo ma ni lépp lu ci wàññ lu bari wàññiku na. bi ci njëkk mooy dëkk bi ku ne xam ne amoon na problème mu ndox bi mu toogee la jublu ci loolu ba loola saafarawu na problème mu faj ku ne xam ne ni amoon nañ ci jafe-jafe ah, gis nga jëf ji fi jëf. hôpital Matlaboul Fawzeyni ku ne xam ne jëf jam fa jëf hôpital bu bees bi nga xam ni mi ngi ko fiy def ku ne xam na ni am na yéene ci dëkk bi ku bëgg a dem Ndakaaru ku ne xam na ni jëf jure ji def foofu kon ñun war nañ ko ñun waa Touba war nañoo mobiliser ñun ñëpp jàppale ko ndax ku xam am na yéene ci réew mi am na yéene ci rawatina dëkkub Serigne Touba bi. waa alhamdulilah ñi ngi sant yàlla boo ci bu baax ci loolu di ñaan suñ borom jàppale ko ba yéene ji mu am suñ borom jàppale ko ba mu am ko Euh, kuy def defar Touba rek dañ ci am mbégte ndax ñun soldaari Serigne Touba lañ comme ni ma leen ko waxee woon. ndax boo gisee ñun ñuy soldaaru Serigne Touba moo waral ñu fab suñu alal ñëw investir ko fii ci banlieue bi di Oumoul Khoura def fi usine boo xam ne day liggéey gerte lu tollook ak juróom-benn fukki nit di fi liggéey muy ay góor ak i jigéen ñu bëgg leen a jàppale ngir Serigne Touba. te loolu it président Macky Sall mi ngi ciy dimbali ndax ku ne xam na ni rasia dégg ngeen ko ci dëkk bi gerte gi daaw amoon na jafe-jafe waaye ñun segalkat yi Touba yi biñ ci duggee ku ne xam na ni gerte gi fi ñu dool nii pré bi mu àgg suñ mbokki baykat yi gis nañ seen bopp ñun ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ kere suñu usine créé suñu employé employé am nañ ci e, mbégte bu baax a baax xanaa kay di ñaan président jàppale euh, population Touba. ba ñi nga xam ni jël nañ décision pour liggéey mm. bu ko defee suñ borom dimbali leen mm. bañ mën a àgg fañ bëgg euh, ndax ku ne xam ne ni mbooloo miñ mobilisé fii tey ku xam ne ni bu buñ jëriñu woon dara askan wi loolu du mën a nekk ndax loo xam ne démb lañ ko programmé dajale fi mbooloo mu mel ni weddi moom gis bokku ci ñi war naan dañoo am mbooloo dañoo am mbooloo ku leen woowoon ba mënuñoo dajale fukki nit kon nag ñun am nañ mbégte bu baax xanaa di ñaan bu bis baa ñu wutal ñu ay moyens bañ mën a fexe ba askan wépp mën a wote ji ñibbiwaat seeni kër ñu falaat Macky Sall. jërë ngeen jëf. ay lii dama cee ànd ak xel mu dal ndax ci 24 heures ñu mën a mobiliser lii di wane na ne ay ñu am pas teef génn ak ñu am pas-pas di nuyu Serigne Bara Ndoy ak euh, El Hadj nga xam ne yaakaar naa bërki démb lañ ma ko présenté ah muy ñu nekk ñoo xam ne ah dafa am lu ma gis ci ñoom ah, ba tax ñu bëgg leen a jàppale. waaw man nag niñ ko waxee kaw lax laa dëkk waaye kër gi ma njëkk am Touba laa ko am donc wane na ne fii laa dëkk beneen bi mooy kuy taalibe murit moom xam nga ne saw dëkk waaye Touba gii la donc mën naa ne Touba laa dëkk. Kaolack dama faa gane ma bëggoon leeral rek li tax ma dugal sama loxo Touba dama doonu taalibe murit am loo xam ne sëriñ tuubaa nas na ko ci ree ci dëkkam bii ñaan ko sunu borom ci Matlabul Fawzeyni loolu mu doon loo xam ne ñun ñii taalibe yi buñ ko deful jinne ñoo ñu koy defal moo tax ñu fas ci lépp loo xam ne ñu ngi koy mën ñu koy def am na nag loo xam ne nit lu mu am alal mënu ko nguur a ko mën bu ñu gisee koo xam ne ñun gis nañ ne birnde nañu ne kii Touba ñor na ko ndax ku jël tali bi nga xam ne mooy gën a gudd ci Afrique nga tabax ko digganteeg dakaar ak Touba kooku dese la too dara Touba. santuma du ma wàlliwu waaye kooku xam naa ne sëriñ Serigne gërëm la ndax sëriñ Touba amul lenn lu dul dëkkam bii ku ko fonkal mu fonkal la ko ku ko ñàkk fonkal mu ñàkk laa fonk kon gars yi nañ leen fonk Macky ndax Serigne Touba fonk na ko. beneen bi ci topp mooy sama digganteeg Macky Sall Serigne Mountakha Mbacké moom moo ko présenté. donc man bu may jàpp président Macky Sall Serigne Mountakha laa ciy xool mën naa ne Serigne Mountakha ma ko jàppaloo te nag gars ñun murit yi ñun waa Touba am na loo xam ne war nañ koo bañ Macky Sall bu ñàkkee élection yi du doon sunu ndam ñun waa Touba wallahi du doon sunu ndam ndax jiwuñu ko fonk na dëkk bi. fonk na sëriñ Muntaxa am na yar am na taalibe te am na nag lu mu nas ci dëkk bi loo xam ne nii yaakaar naa ne am na ci Touba ñoo xam ne jot nañ cee gis njariñ li am na ñoo xam ne ci Touba jot nañ cee gis njariñ li ñu nit lañu war danañu def ba lépp lu ñu mën ba njariñ li fekk si leen fii yéen ñii seeni bébé dégg nañ ko muy liggéey pour jigéen ñi muy liggéey pour góor ñi incha allahu rabbi bu ñu génnee ci lii comme xamante nañoo ak seen ñaari gaynde yi danañu mën a fexe ba lii nga xam ne mooy DER di programme bi nga xam ne jigéen ñeeg ndaw ñi ñoo ko tax a jóg ñu mën taxaw ba li nga xam ne moom ngeen war a am ñoon di ko fii wax naa leen léegi nee naa leen am na projet yoo xam ne président nar na ko gars yi ki nga xam ne daf la dig reer su la joxee ndekki ak añ war nga koo gëm ki ñu jox Ila Touba defaraat hôpital Matlaboul Fawzeyni di waaj def beneen hôpital tabax fi ñeenti forage gars yi dama ne kooku bu leen ne Touba am naa yéene mu mel ne Makka ma Madina nañu mel war nañ koo gëm am na nag ku may dégg ci dëkk bi am na ku may dégg ci dëkk bi ñun moom mënuñ nax ndax démb xëy na ay ndaw lañ ci tànk waaye démb fi la fekk yoon wii du yoonu naxante sëriñ Touba kenn mënu koo nax doo xëy bés foo waxee teg cib alxuraan ngay puus di puus ba mu leer ne lii sénégalais yi découvrir nañ ko nga bàyyi alxuraan bi loolu as naa fekk weesu ko nga jékki-jékki wër réew mi mënoo jot. nga ne ah Abdoulaye Wade de Touba la xaaral ma dem doog euh, euh, xaw ma tuub lañ koy wax xaw ma jébbalu doonu murit dama ne gars yi bu ñu nax ñun suñu dëkk bii ñaar lañu soxla ñaar lañuy jàppee nit ku fonk dëkk bii ak ku fonk sëriñ Touba te loolu gis nañ ko ci président de la république Macky Sall ma ne leen déglu leen ma li ma leen di wax loolu nag li koy waral li koy dindi mooy li koy faj le 24 février bu kenn jombal sa carte Macky Sall ndax wax naa leen ko waxati leen ko bu doon candidat bu bees la mësul yor réew mi discours bii du ma ko am waaye bu alam lekkee niñ ñu koy waxatee lu lëkk lekkee olom na ko gërëmee coy kon gars yi nañu jàppale président la république Macky Sall le 24 février ñu teel a yeewu ñun ñëpp ku nekk bañ a tayal ci dara ñu jël suñu carte voteel ko bu boobaa mu am ndam Touba yéen ngeen am ndam Sénégal am ndam ñëpp am ndam sërëñ Serigne Mountakha kontaan wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu